Nous ñooy commune bi nga xam presque à Dakar Nous avons une am Nous zone avons zone 7A ak zone 7C Nous avons 19 ASC et ñaari zones yi et avons aussi depuis le mois de septembre Nous avons maire amoon gis-gis ak conseil municipal Nous avons un conseil municipal bi ni dama nous dama sensibilisation parce que le Covid a commencé en léegi déboursé presque 300 voire 350 millions pour lan le coronavirus mais bu ñu xeexee def loolu yóbbu ay kit yi dem si structure sanitaire yi dem ci école yi dem fépp lu yóbbu lavoir yi yóbbu ay gel hydroalcoolique yóbbu masque yi def dotation di remercier aussi nos partenaires parce que am na ñu nga xam si ay entreprise lañu jàppale ñu si loolu xeex boobu mais bu ñu à un moment donné ñu continuer combat boobu ñu ne nañu dem seeti xale yi parce que comme Croix-Rouge ni mu ko defee ñëw vers la mairie proposer ñu projet nous ñu accompagner leen ba maire nous na mettre à disposition un véhicule bi nga xam ne de liaison ñu def tout le tour de la commune madame la maire de Dakar nous appelé son son jeune frère le maire de Anne. mais nous ñu le siwaat bon ASC comme ASC aussi ay vecteur de porteur de voix Nous, ñu ay ASC aussi nous dem dans les coins et les plus recoins ASC n'est que l'antisocial, presque la plus démocratique la plus représentative ñu jaar ci ñoom wax ak ñoom ba ñoom aussi ñu indil ñu ku nekk projet wonna naa leen projet projet yi ñu defoon nag continue sensibilisation tay dañ leen di jox benn ndàmpaay contribution bu ndaw la buñ leen di jox contribution yi nak mënu régler tous les problèmes mais au moins ñu xamni mairie baangi seen côté pour stimuler régler walé benen question bi les autres ASC recevront les autres associations les organisations communautaires de base les associations association socio-professionnelle yu organisation communautaire de base pour que que di nga jot li nga war a jot boo ko activité mais comme nous allons vers la fin de l'année, c'est la raison pour laquelle nous sommes essayé. ASC yi Le stade municipal il y a fi choses. na mais nous ko dafa nekkoon situation bi nga xam ne si vraiment problème de sécurité Nous bu ñu footballé aussi itam bu ñu paree xale yi mouvement nawetaan bi ñu si bare yàq des yi affaire yi dem stade bi ñu tëjoon ko ni dañ koy réparer conseil municipal bi chaque fois bu ñëwé ñom ñëpp ñu ñëw ni vraiment nañu wax ci problème au stade bi mu nekk vraiment doléance priorité ce conseil municipal bi ñu fexé ba ñu ni gazon synthétique fi ñu tollu ni phase presque bu mujjé la phase terminale amna réfection yu ñu ci def bo ba léegi yoy presque war na mat 150 cinquante wala deux cent millions gazon synthétique bi rek moy 500 millions moy mooy 448 millions yoy lu ñuy def nous moo nous permettre aussi ñu un stade multifonctionnel stade nous football de sport activité sportive Nous def ko bu choses. a nous ba tax des préparer USB bi ASC communal vraiment nous redynamiser générale teggi structure vraiment inviter toutes les associations tous les sportifs pour

indi rapport partie financière bi ak partie technique bi activité yi mu ñew wax ko maire maire soumettre ko conseil municipal bi bu conseil municipal bi y bu def orientation budgétaire dañ ni samay ndaw kat duma def pilotage à vie mais ñi pendant année année année N ba année N plus 1 lan ak lan la ñu loolu ñu soxlo ñu mën ko ki parce que ñu ay kilifa la ñu te kilifa du tâtonner té kilifa du du déggee ci mbéd kilifa fay planifier te ñoñu am nañu ay ressources humaines de qualité am nañu ay planificateurs fi am fi ay spécialistes dans le domaine ñoñu ñu xam ci dañ ko travailler benen bi muy mujjé nak dama waxoon sport bi nañu déglo sportif yi parce que n'ak, mëno nek mbirum lamb ba paré bëgg man ci mol yi mëno nek mol ba paré bëgg man ci ci ci ci ci terrain bi football ñi nga xam ci ñoy ay sportif nga déglu len bo len dégloo bu ñu ba pare ni la lii la ñu ñu def ko parce que dañ ko saytu won amon na ay année bu monsieur le maire Babacar Mbengue di ñëw en 2009 dafa fekkoon école en bel delu ginaaw trop mais bu mu saytoo nek nit guy déglu am oreille attentive dafa wo gaay yëpp ñu ñëw mu len légui lan lañu wara def enseignant yi nek que ñuy def moy dañu organiser journée d'étude may remercier vraiment IF Abdoulaye Wade buñ ko remé buñ ko défé légui depuis ñetti at nous sommes les premiers dans les premiers. Donc, d'ici 5 ans ou bien d'ici 3 ans, nous serons les premiers sur, sur le plan sportif.